rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah deux mille décembre 2019 ñu ñëw ci njëgle kaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb fa la ñuy xëy doore ko ka fa xëy nag ngar daajoo yëglikaay ba di wax mooy président wu Rock Énergie di Xaadim Gajaga Xaadim nag moom la muy wax daal mu ngay wax tey dëggali waxam diggante moo ak Ama daal lay xamle ne daal li leer ba leer moom nañu ko jàpp bu ñu ko fekkee te tal ko incha allahu rabbi nee na combat ba moom day am ci atum 2020 le 26 ca ci arène national Xaadim Gajaga moo xëy tey di wax lii wax na tamit tëgg tëgg làmb ja muy lig Nicolas nee na bu ko jàpp bi jàpp moom luy tax làmb taxaw la waaye du tax làmb dox maanaam daal luy freiné làmb ji la doon moom Khadim Gadiaga moo xëy ba tey di wax ci mbir mu mel ni kii noonu leneen loo xam ne tamit dañuy xëy wax ca wala ñu xëy gis yëglikaay bi di ca wax mooy diggante Papa Sow ak Fass moo xam sunu làmb la moo xam ca Leewtoo TV la wala sax li TV fu nekk daal Papa mu nga fa bu dee fi nga xam ne nag mooy ci yëglikaay bi moom moom Papa wala ca Leewtoo TV la mu xam ne daal mooy tooñul bay jéggulu tey itam xam na ne daal ñoom ci seen biir xamante nañu loolu mooy wax ki nga xam ne moo di Papa Sow Bécaye mbay nag moom nekk ci làmb ji di kilifa moom itam mu ngi cay dox li nga xam ne nii mooy tànki jàmm ci diggante Fass ak Papa Sow parce que nag jàpp na ne daal ñoom dañoo war a ànd nekk benn moom père Bécaye daal loola la gis ba tax mu sol aw dàllam di ca jéem a jox li nga xam ne ni moo di tànki jàmm am na koo xam ne nag moom mbër la waaye nag actuellement wala jamono ji ñuy wax ak yéen moom mu nga ca bitim réew ca réewum états uni rubrique ba yëglikaay bi tuddee nag lamb bitim réew moom fa xëy moom itam wax fa ay soxlaam wala wax fa la mu xalaat muy Fallaye Balde numéro 2 ma ngeen xam dëkk Pikine nekk ca école de lutte Fallaye Balde ka nga xam ne nag moo di Aziz Ndiaye ak Gaston Mbengue moom moyu leen ndax moom daa jàpp ne ñaar ñi moom tey làmb li ñu yor maanaam lamb defal na leen ko wala mu bokk ci bokk li leen gën a teg fi ñu nekk tey ak ñoom ñaar ñi daal la yaa làmb ji ñoo koy yàq ndax boobu ba tey ñoom ngay dégg ñuy wax seen ay perte ak seen ay nangam te fekk na loolu ñuy wax demewut noonu la ñu gañe mu ëpp fuuf la ñuy perte kon daa jàpp ne ñaar ñi moom ay yàqati lamb lañu du samay wax nag Falaye Baldé numéro 2 ma ci États-Unis moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit ñëw na ca communicateurs yi tamit nee am na ci ñoo xam ne ñoom it ci ñuy yàq làmb ci la ñu bokk ndax fu ñu leen dékkee micro ñuy wax waxi violence violence te daa jàpp ne lamb ji benn violence bu tax ñuy wax amu ci violence suñ koy wax am na feneen fu ñu ko war a ji su lu dul si làmb ji nga xam ne ni mooy suñu làmbi réew loolu ba tey wax na ko ka nga xam ne nag rakkam la moom di Ama Baldé mu ngi koy ñaax xamal nag wala boog mu koy gën a yeb ne na daal li leer ba leer ama moom suy xalaat sax cib xelam ndax man mënta daan muutloo moom su yeboo na bàyyi làmb te moom sax gis na ne ama mën naa daan sax ku raw muutloo te jàpp na itam daal roi des arènes bi moom day leer ci ki nga xam ne nii moo di ama balde fallaay balde numéro 2 daal moo xëy tey di wax wax ju mel noonu fa nga xam ne bokk mooy ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye ba tey bu nu continuer fa nga xam ne nag moo di ca la tribune la tribune moom tafaatin la ñu xëyee andil ñu ko teg Malick Niang ak rëg-rëg mbaa tafaa kon du mujj ju fu mel ni ki foofa laa tribune moo xëy tey ñëw di wax lool waaye leneen loo xam ne moom daa mel ni amateur yi ñu ngi koy laaj mooy diggante Diène Kaïré ak Moussa Ndoye kaay bi di suñu làmb tamit ñëw na ci am na ñoo xam ne sax joxe nañ ca li nga xam ne moo di seen xalaat wax ca daal la ñu gis ci boobu combat ndax lu war a mën a nekk la wala boog loo xam ne mënta nekk lambi simple ja moom dan cay dem moo xam ca Leewtoo TV la wala Leewtoo point net mel ni nag général Malika moom depuis saison bi ubbee ba tey tournoi bu njëkk a ngi mu koy gañe ci ndakaaru moo taxit daal ba mu ko gañee moom ay rongoñam la far limboo ndax nag xam naa xol baa sedd wala yaram wa daw mu mel ni ki démb itam laamam jooja metti woon na wala mu bëri coow final ba nag diggante ma kii nga xam ne moo di Saal ndeng leer la loolu la ñu yëglikaay bi xëy ñëw di ñu ko wax mu mel ni ki daal kon li leer ba leer moom soo bëggee dégg-dégg làmb ja moom mu nga cag doxam rek di dem waaye la ñu ko waxen kër rek ba ñu fi mujje di rëfi la ñuy waxaat rek di ñaanal Sénégal Sénégal giinu ne yàlla na fi jàmm sax te yàgg fi waaye am ci àddina bi yépp waaye suñu mbokku chrétiens yi ñu ngi leen di waxaat rek joyeux Noël rek comme nañ leen ko waxee woon kere rek loolu moo am ndax nag Sénégal lañ ci wax moo ci nekk benn bopp la mënee su koo xar ñaar kon yàlla na yàlla tàppe xol yi na ko maam da baax daan waxe ko waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi maa ngi lay nuyu dinaa la sa lokos rafet na lool waaw merci Ndeye maa ngi lay delloo nuyu bi yow tamit ah la wax jaaju sa lokos rafet na ah. mais di nuyu internautes yëpp ah di leen siyaar di leen la jàmm lokos bi nag moom tey xam nga euh, ku ñuy wax Mor Diouf non Petersen moo fi jaar ak tubéy bi waa tey moo ma xëy rek solal ma ndeysaan solal ma lu rafet lii Mor ma koy nuyu di jaaykatu yére commerçant de Petersen di ci profité du nuyu waa Petersen yëpp Babacar tamit comme information nu fàttali tey le quarantième jour euh, dem si yàlla Pape Dia. kon yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana rek comme ni ñu ko doon ñaane boobu ba tey mais di ko ñaanal bépp jullit bu tëdd ci suuf si rek yàlla na yàlla jéggal ñëpp te xaare leen aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Amine Babacar ñu ñëw nag si sunu laam sunu laam nag dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Khadim Gadiaga président écurie Rock Énergie moom daal mi ngi mi ngi euh, mi ngi joxe information comme comme quoi di dalal xelu amateurs yi ne Modou Lo dina bëre incha allah ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé le 26 juillet nee na nag Modou Lo tamit mi ngi waxtaan ak Luc Nicolas nee na nag jàpp bu ñu jàpp euh, Luc euh, Luc Nicolas benn frein la pour pour làmb ji Babacar. waaw waaw comme noonu mu ko waxee Khadim daal ah ñu koy nuyu di ko ziar président Rock Énergie que ni Modou Lo dina bëree moo Ama Baldé incha allah rabi le 26 juillet waa dañ naan amin yàlla na ko yàlla def comme combat bi taxaw na ba ku ne am na loo jël ñu seq ak waa Ligue Nicolas N ko contrat kon dañu ñaan yàlla rek yàlla bàyyi ñu fi ba le 26 juillet ñu fekk ko te tal ko arbitre suuf lee génn seen diggante ñu bëree comme nanu ko xaadim waxee ñëpp loolu la ñuy souhaité moom la ñaan waaw li mu wax tamit que làmb te Ligue Nicolas lu koy freiné la wala benn freinage la ci làmb effectivement ndax Ligue Nicolas comme li ñuy wax rek waxuma sax làmb mais dama naan nekk nekkul tey n'importe quelle personne ci naa ne tamit nit la nga xam ne nii tey mu ngi employé ay nit di leen fay ay salaire suñu sañoon tey ci jàmm rek lay nekk comme ni ñu ko yéenee bépp doomu aadama mais nag àddina comme li olof yi di wax rek moo weeru koor a yem fekk doog jotul daal jubu weesagul fekk yaa ngi dund lépp mën na la arriver mais ñu ngi ñaan yàlla rek lépp luy arrivé doomu aadama yàlla nay doon ëllëg ngëneel ci moom même bu dee lu metti la yàlla na mujj nekk ngëneel ci moom parce que tamit yàlla moom moo ñu bind te bind bi mu ñu bind nag ni mu amee bànneex noonu lay amee naqar noonu lay amee ay jafe lépp waaye lépp rek yàlla nay mujj ci net li bu rafet ak daal amin Babacar Babacar nag journal bi tamit ñëw na dina xamal ne kii di Bécaye Mbaye nekkoon chroniqueur 2STV te mu nekk fee nga xam ni mooy TFM nee nañ daal mi ngi dox digg euh, tànk jàmm pour Papa Sow mu delluwaat si biir écurie Fass waaw loolu day du ñu mën def lu du rafetlu ko et puis tamit ki ñu wax ne moo koy def muy père Bécaye Mbaye yaakaar naa day gumba faal loolu du ñu bett si moom parce que nit la bi nga xam ne ni royukaay la par rapport ak tey ñun li ñuy def parce que nekk nañu si làmb di dem di seetaan làmb boobu yoruñu sax micro di ko gis mais gis nañ façon bi muy liggéey liggéeyam ci maanaam jàmm ji doo xam ci moom mukk mer ci liggéeyam te pourtant nit ku ne da ngay am lu naqari mais doo ko gis ci kanam muy nekk nit ku baax kon tey bu problème amee entre ci écurie Fass ak koo xam ne doomu Fass la di Papa Sow bañ dañ ko fa dàq yooyu ñoom ñu ne moom ñu ne mu ngi cay dox ay tànki jàmm kon du mën a def lu dul rafetlu ko parce que père Bécaye moom naa ne loolu mooy rôlam te itam ku ne xam na ne sénégalais yi tey ruus nañ ko kon yàlla na ko yàlla dimbali ba loolu mu jël ko mission di ko dox yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir ko parce que tamit jàmm moo gën aw ay yaa ngi dégg réeroo day am waaye waxtaan dara da koo gënul tey waxtaan nag li koy indi mooy ku nekk rek ñuy jëlale tey jéggale dafay am solo waaye nag bu kenn ku mu mën a doon muy Papa Sow wala waa Fass bu kenn yaakaar ne waroo mën a juum wala nga war a mën a wàcc yoon ñun ñëpp a yem foofu parce que ay nit lañu mais tamit yàlla nañu yàlla di dimbali ba bis bu ñu juumee ñu xam ne dañoo juum te nangu suñu njuumte loolu dafay am solo. journal bi nag comme ni ñu koy defee chaque semaine dafa indi euh, làmb bitim réew te nag ki la dalal ku ñuy wax Fallaye Balde numéro 2 Fallaye Balde nag numéro 2 bu ñu ko laajee si micro si xalima euh, Abdoulaye Dembélé moom daal ay xeeram daal la yor sànni si fii nekk Italie sànni ay xeeram fii si Sénégal nee na Aziz Ndiaye ak Gaston Mbengue dañoo war a noppi ndax làmb ji ñoom noo ko yàq te tamit yàq nañ ko waaye tamit lépp lu ñu am rek tey jii si làmb lañ ko jëlee Babacar. Fallaye 2 di mbër nekk école de Fallaye Balde tey mu ngi États-Unis ah ñu koy nuyu di ko ziar waaw waaye nag euh, wax na xalaatam nit ku ne am nga droit moom duñ ko aaye kenn waaye nag Aziz ak Gaston ñoo yàq làmb ji ah man Babacar moom du ma si mën a d'accord non non parce que am lu tax ñun defe naa nag tey làmb fi mu yegg am na ci part responsabilité bu rëy rëy rëy rëy ki ñëw nag ngir defar benn affaire ngir yëkkati benn affaire mën na am ñu am ci ay njuumte ndax kenn amul lu parfait déedéet nit kenn amul ku parfait waaye yaakaar naa nag tey làmb am na fu mu yegg ci niveau yegg fa ci ñu respecté ko wala ci nangam Gaston Mbengue moom am na ca part bu rëy rëy rëy rëy Aziz itam bi muy ñëw ni ñëw na nekkoon xale ñu tudde ko le Benjamin des promoteurs mais bi mu ñëw ku ne xam na ne marqué na empreinte am kantaan nag comme li wax ci li mu leen di waxal que ni ñoom dane maanaam tey dañuy wax dañuy perte dañuy perte ah li tax ñoom ñoo ñoom ñiy tëgg ku tëgg tey ne damaa perte wala dama gagné wala nangam xëy na yow mi ko wax waxu ko ngir nii nii rek ngir yàq pour man da nga ko wax parce que loolu dund la mais encore une fois rek ñu xam leen da nga daal wax ji moom comme la ma la waxoon léegi rek ku ne am nga droit sa xalaat waaye itam du tere ñuy fexe wax ji muy rafet loolu am na solo trop ndey Kumba waaw. keneen ki nga xam ne euh, wax na tamit si biir journal bi muy euh, kawu euh, Diène Kairé waa écurie Sumba Jun ñoom daal seen xel seen xalaat yépp mi ngi ni ngi ko teg si kaw ki nga xam ni mooy ki nga xam ne mooy Moussa Ndoye waaye Moussa Ndoye nee na ñoom xalaatuñu sax bëre ak ki nga xam ne mooy Diène Kairé. waaw waa kër Moussa Ndoye ñu ne xalaatuñu waa Kairé wax na ma ko parce que laaj naa ko mu ne moom. Euh, même moom bu ko bëggee waa yaraax bëgguñu ko te moom actuellement fi mu nekk nii ay combat am waa ñoo koy ñoo koy gérer waaye nag euh, xam naa daal ñoom ñëpp ay génération lañu Moussa Ndoye nag moo jiitu jën kayri si làmb waaye nag yaakaar naa oh, comme li olof rek garab ci kaw lay làmb garab la ci kaw la ñuy fekkante yaa ngi dégg bu Moussa war na ko mën a may chance bëre ak moom jën kayre nag bu ñuy wax sa tey loolu xëy na muy xaw am jafe-jafe résultat bi mu def daaw moo ko ko yóbbee muy match bi mu seqoon nag Queens mais bu doon def ci am ndam kon yaakaar naa waxatuñ loolu wala suñ koy wax kon mosam xëy na du waxee nii waaw moo tax nag mais nag terewul ka ni. war na mën soo taxee tamit jën keren ñame ko xëy na defet bi mu jógee tamit si garaka moo tax mu ne ma koy laaj. waaw bien sûr parce que Moussa Ndoye dafa jël daaw defet moom mu mat si ni la Queens yaa ngi dégg kon yaakaar naa tamit war nañu mën a bëre ah war nañu mën a bëre waaye nag Moussa Ndoye mbër mi ne leen bëriwuma ak diw wala du ma bëri ak diw kooku mën a leesu ko dara waaye nag bu ñu waxee ci cadre sport ak yooyu Moussa Ndoye war na ko mën a jox sens ñu bëre waaye moom dafa mel ni que bi ma ko laajee li mu li ko gën a intéressé daa mel ni Modou na ko yaa ngi dégg ama neex it dafa mel ni intéressé na ko waaye nag Diène Kaïré ama neex ak Modou Anta ak ñoom Coence ak ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ku ci bëriwul ak sa moroom tey suba suba combat mën nañoo boole leen Babacar nañ jógee suñu laam dem fi nga xam ni mooy Leewtoo point net Leewtoo point net euh, démb nee nañu général Malika moo gañee ki nga xam ni mooy Zal Ndingler waaye daal bu mu bëree bu pare ba daan dafa jooy jooy yu metti Babacar muy première victoire fii nga xam ne mooy Adrien ginnaaw bu mu gañee fee nga xam ni mooy Djilor la 15 décembre passé waaw mu mel ni kon loolu xëy na duñu koy félicité ah parce tamit xam nga daaw ñu nominé le meilleur lutteur de l'arène ci wàllum simple ren saison bi bu mu ubbee ba tey mënoo am benn kii nu ñu koy waxeeti benn ndam Dakar dafa metti saa yoo demee ñu daan la final wala demi final waaw mu doon mais nag taxul mu bàyyi mu loolu wan ne tamit moom it am baax na parce que par rapport ak li mu jota a dund ci ouverture saison bi su moral bi baaxuloon dootul ñëw wala dina xaw a buy ñëw dootul nekk mais nag voilà xam naa loolu nag moo tooyal xol bi ba mu jooy waaye nag di ko wax ne sport noonu la comme li ñuy wax rek affaire yi moom bu ñu la yaa jiitu moom yaa jàppale yaa ngi ci problème waaw moom kay nag moom jooyagul sax de bu yeboo gën a karawaase ndax it gars yi dañuy bëgg li mu amoon daaw ñen ñi dañuy bëgg mu am ko waaw parce que ñoom ñëpp ay mbër lañu te ku ci ne da nga bëgg bu saison bi jeexee buñ ne lit simple bi ñu ne diw moo ko moo moo moo koy gagné kon ni mu ko gagné moo tax nag gars yi ko may jàmm moo tax dañ koy félicité di encouragé Sall Ndengeler moom itamit di wax ne que daal lit simple mu ngi noonu ñoom mënante wu ñu ah, dañuy daanante rek xëy na kenn lañ ci mën a seppi mooy rëg-rëg parce que moom it loolu lu tax ñu seppi ko mooy loolu moom moo ko waneel boppam waaw Babacar yaa wax léegi ne problème mais problème nag ku nar a am problème mooy le 29 le 29 décembre jax sama nar a am problème ak euh, mise u 10 boobu noonu nee nañu nag rërëb ba mu nga tudd sax nee nañu mi ngi waajal bu baax mi ngi si àll bi Franc tamit nee ñu dina jóge États-Unis uniquement pour ñëw bëre si foofu si Leewtoo point de ko xamale waaw ndax nag 10 millions xam nga du ay fa man mi sax kay boo saa gën a wàcc de décembre bi waaw yore moom kay toggal say fonde rek tey defaram ndox ut karité ak yooyu dàmp nit xewer yëpp utaale ko xam ne moom damay dem waaw loolu kon jax moom xam nga see euh, moom moom comme ni mu koy waxee rek moom ñàkk caaxaan la jax yaakaar naa tey tamit li simple bi lu ne def na ko ci kon tey defe naa nag def na loo xam ne nag mosu cee am dix million moom c'est la première fois mu am ci làmb simple kon looloo leen wan ne làmb ji mu ngi dox rawatina simple bi ah waxuma rëg-rëg ak faraak Serigne Ndiaye ak Selemelek ñoom li bi door ku nekk kay xam naa fi mu nekk nii moom. àll àll bi kañ fi ne nii xam naa tey boo demoon tey foo foo foo seen ci diggu àll bi xamal ne oto la. ak ak yaay. ah du ah, ku mu neex demal ak yaay man baax na ci de moom daal fu ci waaye xam demal waaye man moom ak yaay du leen ko bàyyee ndax man damay bëre si dimanche. yaa ngi sa biir waaw ak jagsi rek du mën a ñàkk. <laughs> su kàddu yooyu la leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy ne sama yaay Mère Sow di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astane ne DG Brahma depuis Italie chéri Khadija Diallo di nuyu Assise chéri Khoudia as as Seck chéri chéri Khoudia Seck depuis Italie aussi maa ngi koy nuyu nuyu samay doom Maam Jaara Penda Rokhaya bébé Moussa bébé Fallou ñu ngi si biir di nuyu aussi ki nga xam ne mooy Abdou Gueye papa yi Sita Baye Fallou jàmmagan depuis États-Unis aussi maa koy nuyu nuyu ki nga xam ne mooy Mbaye Sey depuis la France moom tamit naan ko maa ngi koy nuyu di ko jox wàccu waayam di nuyu waa Parcelles Assainies Unité 26 yëpp Babacar waaw noonu lay demee nuyu parce que tey gis nga habillement bi moo fi génn. désiré bi waaw ak désiré bi jiin désiré ah Mor maa ngi lay bëgg di nuyu tamit ku ñuy wax Dóor waar nekk jaaykatu dal nekk fii Sibirata centenaire di la wax ne day kumba far rek jox ma sa pointure moom dina la jox ay dàll bu neexee yàlla dóor waar kii laa bëgg nga joxal ma ko ay dàll jigéen yu rafet a rafet di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre xam nga du du ñu fàtte kenn ñi nekk France ñi nekk États-Unis ñoom Abdoulaye Mbaye ñoom Tuuti Yaay Sarr Xaadiroos fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko sàqu ci yow den wax ne moom Leewtoo 100 pour cent lamb rek ngeen fiy seetaan su ngeen ñu ko bindee wax ñu ko ñu ngi liir commentaire yi dañ koy nangu xool ko parce que tamit kiy wax kiy déglooy mbokkam kon yal na ñëpp am jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm di fàttaliwaat rek que ni sama commune muy commune Ndondol finalu nawetaan bi le 31 décembre la dox ci diggante ASC bu ñu wax Mbomboy ak benn ASC bu ñuy wax Renaissance nekk CSN ñu jagleel la ko maître Pape Sène loolu mooy final ba kon di wax rek que ñu def ko ci cadre fair play mais du nuyu tamit suñu Thialis di ko wax mention spéciale yàlla na ko yàlla gën a kàttanal mook tonton Diaw borom ADN borom asalem ibaa Iba kenn day moom boroom pikin Iba Ndione rek moom mooy boroom pikin ba suba incha